Hallelujah. nasaraan ma tëdd ci wolof ah, ginnaaw ba ñu defee une minute de silence ñu jagleel loolu suñu rakk yi suñu dëkkandoor yi suñu mbokk yi ngeen xam ne ni dañ fi jot ñàkk seen bakken ci événement yu fi amoon ci mois de mars dernier ci atum 2021 dama bëgg a wax ci leer ñooñu suñu defuloon nu ñu defoon su am lu taxawaay bu ñu jotoon am ci événement yooyu tey nguuru président Macky Sall du fi organiser élection kon nag ñoom ñu ngi ñaan yàlla na leen yàlla xare ci àjjana yu dana a di ñaan tamit yàlla na yàlla may seen mbokk yi ak seen njaboot yi xolu muñ wante démocratie lu mu soxla dañ koy jox que démocratie ko soxla woon parce que amul benn république fu ay nit di mën a dëkk ci jàmm ak salaam te démocratie saxu fa donc ñooñu ñu ngi leen di jaajëfee ginnaaw ba ma nuyu mbooloo ci ci meeting bi ngeen may ma ma def mention spéciale conférence des leaders yu Yewwi Askan Wi ma def tamit mention spéciale. 19 candidats yu nekk euh, ci 19 communes ñu ngi leen xam ne ñoom la ñu ci turu Yewwi Askan Wi ma def tamit mention spéciale ci bépp góor ak bépp jigéen bu ñu investir ci liste Yewwi Askan Wi ci ville de Dakar ma daaneel ci mention spéciale yi bépp góor bépp jigéen bépp mag bépp ndaw bu ñu investir ci bépp liste Yewwi Askan Wi biir 19 communes Ndakaaru mbokk yi nag tey dama leen di laaj rek parce que man dama bëgg damay laaj rek baa xol yi sedd na damay laaj rek baa comme nag woy ngeen ko ba pare saay-saay bu mag a mag doobu moom sul nañ ko dee sul nañ ko lu ci des nag mooy sarax si wax naa leen ko mooy le 23 janvier 2022 na ngeen góorgóorlu ba seen taxawaay seen doxalin seen jëfin bu kenn am xel ñaar ci suñu ndam bu ñuy am le 23 janvier 2022 incha allah parce que moom mooy nekk le premier tour de l' présidentielle ginnaaw loolu nag mbokk yi candidature bi dama ci ànd ak mbégte wante xam naa responsabilité bu ngeen ma tënk te su ci yàlla ànd incha dama fas yéene ànd ak yéen doomu ndakaaru yi ànd ak suma yaay yi ànd ak suma papa yi ànd ak suma mag yi ànd ak suma rakk yi ànd ak suma mbokk yi suma dëkkandoo bi ñu bokk benn ndey bokk benn baay liggéeyal askanu Dakar liggéeyal Dakar liggéeyal ëllëgu Dakar ngeen may ma nag ma def mention spéciale suma mag suma xarit Khalifa Ababacar Sall xeex nañ ko dëkkaloon nañ ko fu mu dëkkul yàq nañ liggéey ba mu commencé woon fii di Dakar wante nag saay saay mën na bañ a wax dëkk mën na yàq xel mën na yàq xalaat mën na yàq xol. wante xalifa Ababacar Sall fu mu tegoon tànkam fa laa fas yéene teg fa sama tànk incha allah kon nag na ngeen xam lépp lu ngeen xam ne ni état moo ñu ko may ci ay sañ-sañ muy lu ñuy woowee compétence transférée mu toll ci juróom-ñeenti sañ-sañ bu ñu état bi dégg damaa ci fas yéene ànd ci ak yéen ci fulla ak ci fayda liggéeyal Dakar Dakar nekk dëkk bu set Dakar nekk dëkk bu ngeen xam ne aafia dafii am xéwal daf fiy am naataange daf fiy am te jàmm tamit daf am parce que jàmm ci lépp xet bugguma guddal parce que maa ngi gis auto police yi maa ngi gis te xam naa ni autorisation bi dañu ko may ba vingt heures wante mbokk yi doon baaxul wante lenn dama mën naa leen ko danga naa gars yi dañ ma tere dañ ma tere def dox mbokk waaw ñoom ñoom ñoom tooñ baaxul comme nee nañu coalition Yewwi Askan Wi coalition bu yee fitna la te wax yooyu dëppul ak dëgg yéen ñëpp dégg ngeen leen Ousmane Sonko wax lu Ousmane wax moom laa wax lu wax moom la ñu wax lu Ousmane Sonko wax moom ngeen wax yéen tamit kon nag su ci eggee su ci eggee mbokk yi dama ne semaine bi su ci duggee incha allah. bi dañ koy soppi mu nekk jokkoo ak mbokk yi kon nag dañu ne man nawatuma doxantu ci mbedd yi kon nag di ngeen ma gis ci marché yi di ngeen ma gis ci jumaa yi di ngeen ma gis ci église yi di ngeen ma gis ci université yi di ngeen ma gis ci grand place yi dama ne na ngeen taxaw tem ngeen ànd ci ak fula ngeen ànd ci ak fayda ngeen ànd ci ci ak jom dama ne mbokk yi mbokk may daanalee ginnaaw xol yi sedd na guy dama ne guy fu may daanalee mbokk yi fu may daanalee mbokk yi mooy élection yi ma ne élection yi mbokk yi mel leen ma rek ma daaneel li ma doon am solo dama ne élection yi mbokk yi wolof Njaay nee na ku ndóomin rey sa soo gisee lu ñuul da ngay daw du noonu ñun dañu demoon élection 2017 élection législative député ba 11 heures et demie ci guddi. yeewu ñoom 3 heures du matin ñu daal di génn ay yeneen chiffres ne ñoom ñoo gagné foofu laay daanale nag dama ne pesum kanam borom a koy fajal boppam dama ne 23 janvier 2022 su ngeen demee ba voté ba ñu tëj bureau de vote ci 6 heures yéen ñëpp na ngeen ñëw suñu quartier général lu ngeen xam ne ni mooy suñu waral ak suñu warugar. dinañ ci ànd ak ci fulla ak ci fayda dem dugg ci mairie de Dakar yëkkati teg ko ci loxo Dakar waay parce que la mooy lan mooy ba Sénégal doone Sénégal ba tey Macky Sall le premier président de la République du Sénégal qui n'a jamais eu un maire de dans son parti et dans sa mouvance la raison pour laquelle la raison pour la raison c'est parce que waa ji cuune la